nañ ay seede ci biir structure de santé yi ñu demoon ñu ne ñoom maaram morgue bi nga xamante ni moom moo nekk hôpital bële récemment moom moo ko fa def à hauteur de 7 millions de francs CFA ñun nag kon dañ naan alhamdulilah parce que dafa mel ni affaire bi continuité la moom donc ñu jàpp ne nit la ku yëngu ci sociale def na doon na fi def sociale ci jamono yee ren kon dafa ñëw rek gën kaa renforcer donc ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko sant di ko gërëm di ñaanal égale di gërëm également invité yi nga xamante ni bàyyi nañ seen lépp ñëw bokk ak ñun suñu journée bi ku ci mel ni le maire ñu ngi koy gërëm parce que moom woo na ma personnellement wax ma ngantam foofu malade mën leen a jox également ay ndimbal donc loolu bu mënee am con c'est vrai conseil communal de la jeunesse moom moo am idée bi concevoir ko di ko dérouler mais dafa am ñu ko jàppale daa am ñu nekk ci ginnaawam mën kaa assister ba nga xamante ni mébét boobu mu amoon ci xelam mu mën kaa jëmmal loolu su amee c'est parce que bés bi dañ ko ne te parrain bi lésiné lésiné wul benn yoon ci moyens yi pour ñu am une réussite total kooku di suñu parrain ren muy monsieur Maram Sall ñu ngi koy sant en sant boo xamante ni am na fu mu commencé mais amul fu mu yem moom nag yàlla def na dafa am empêchement jotul ñëw mu yabal fii monsieur Leyti Maram Ndiaye. ci biir weeru koor bi ak ni mu tàngee ñëw pour mën a taxawee bés bi donc bu loolu sottee kenn ku ci nekk ci yéen ñu ngi leen di sant di la gërëm di wax yàlla moo am fay yàlla na leen yàlla fay mais en door de ça yaa a des hommes de des femmes simplement de bonne volonté yoo xamante ni dañoo dégg action bi rek mu jaral leen seen journée ñu sacrifier ko mënoon a tëdd noppalu ci samedi bi ñoom ñu bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw taxawee bés bi ñooñu ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal ah loolu tam bu weesoo dañuy ñaanal di sant sunu ustaas yi nga xamante ni ñoom ñoo doon taxawee conférence bi di wax na lépp luñ fi wax ci xam-xam yàlla na doon yiw yàlla na doon également xam-xam boo xamante ni dégg ak topp dana ci am yàlla nañ ko jariñoo mën kaa jëfe ñoom tam yàlla na yàlla bàyyi leen fii yokk seen xam-xam leeral également seen kàllaama bañ mën kaa jottali oustaz Mbaj ñoo ngi lay ziar ñaan yàlla yàggal taxawaay bu baax a baax euh, ak oustaz tam ñoo ngi koy ziar bu baax a baax donc euh, ñi ngi sant également centre de santé yi ñu demoon. vraiment am contentement ci li nga xam ne moom conseil communal de la jeunesse def xam ne ñu jël cër bu mag tuddee ko Maram Sall conseil communal de la jeunesse nga xam ne Maguette son secrétaire c'est euh, Ousmane Diaw ñoom ñëpp ñu jël vraiment mbir mu toll nii jox ko Maram Maram Sall nag ku ko xam-xam ne ku yàgg dimbale Jolof la

parce que nous, dafa au niveau de les jeunes appuient fortement le plus souvent femmes familles gëna jappalé il veut maintenant rompre ce déséquilibre pour que jeunesse bi aussi ñu en termes de financement en termes d'emploi en termes d'entrepreneuriat donc lolu moy mébétam té jàpp naa ne nit ku mel nonu ku ñëpp xam ci Jolof mérité na vraiment ñu jappalé ko ci dynamique

di participer ci lépp loo xam ne nii day jëmale dëkk bi kanam surtout activités yi nga xamné de développement la activité également sociale comme li nga xamné mom le conseil communal de la jeunesse def tay jël ay ndogu vraiment tassaré ko ci opto yi tassaré ko vraiment ci nécessité yi tassaré ko également ci vraiment euh, askan bi ci dëkk bi ñëpp ñoo xamné ni vraiment dañ fee romb woron tay am nañ vraiment mbégte bi ñu gisee conseil de la jeunesse di leen jappalé également ci ndogu bobu loolu c'est un acte vraiment fort pour la jeunesse c'est un acte vraiment citoyen vraiment le ñu a développer au sein de la jeunesse. créé un mouvement politique Ce mouvement est-ce que l'information Maram euh, dina créer un mouvement parce que li soutenir le président Macky pour que au premier tour Donc, soutenir en créant un cadre à équidistant querelles politique yi nga xam mo am ci dëkk bi bu ko défé dana mën soutenir l'action du président de la république le mouvement nak bi maram wara créer du dogul amagul tour et japp naa bientôt aussi dana mën tok waxtané ko mën défar tour bi pour maintenant lancer ko et donc daal lan lañ leen a xamal mouvement bi dal ñi ngi travailler sur deux objectifs yi nga xam mom la am en même temps également sur le concept bu heure bi jotee vraiment danañ ko porter vraiment à votre attention pour que yéen ñëpp aussi ngeen mën ko xam. est-ce que am na ay responsable yu war a bokk ci mouvement bi. voilà responsable yi war a bokk ci mouvement bi bari na tey si tey vraiment liñ ci am buñ leen limoon duñ fi jóge te li ma gën a neex également aussi ci mouvement bi euh, dafa am ay personnes yoo xam ne ay kilifa lañ kenn mus leen a gis ci wàllu politique mais bi maaram jógee la nekk ñoom dañuy jóg loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo ñoo xam ne mosuñu yëngatu ci politique bi ñi ngi ci am na ñoo xam ne également aussi dañoo meroon naroon dem feneen ñu retenir leen donc loolu aussi vraiment profit la pour euh, Macky Sall pense que mouvement bi daal li ma la mën a wax mooy euh, waa Daara waa Jolof gis nañ ci seen bopp ñi ngi adhéré wu en masse à chaque fois nag ñi ngi am ñoo xam ne vraiment mosuñu nekk euh, am aucune teinture politique tey ñi ngi ñëw vraiment di rejoindre vraiment mouvement bi. ginnaaw bu ñu sante yàlla moom mi ñu xamante ni moo ñu may. ñu fekkee euh, édition bi muy ñetteel bi yoon ñu koy amal fii ci Daara Jolof donc ñuy sant yàlla di wax ni rek ñun jàpp nañ ne yokkute am na si parce que bi ñu ko defee daaw ak daaw jéeg gis nañ ne ren franchement am na amélioration bu rëy loolu nag bu mënee nekk dafa am ay parrain yoo xamante ni at yi yëpp ñu ngi ñu doon jàppale ñoom ñu ngi leen di gërëm mais ren nag dafa am koo xamante ni moom lañ parrainé woon bés bi mu tudd Maram Sall ñu gis ni ren vraiment affaire yi gën na évoluer joxe nañ ay ndimbal ci hôpitaux yi joxe nañ également ay ñam fi nga xamanteni képp ku fi jaar fi nga ndogok ñun muy activité ay action sociale donc mën nañ né am nañ kontante bu wéré wéré wér ci li nga xamanteni ni bésub bi bésub tay bi tëddee na ko loolu bu amé nak da fekk né conseil communal de la jeunesse équipe am moom moo doon liggéey ci loolu mais également dafa am parrain bo xamanteni mo moo nekk si ginnaawam ko ñukoy sante sante go xamanteni amna fu mu commencé mais amul fu mu yem Hmm. effectivement Maram Sall na ma loxo parce que dafa am khalat ak idée bo xamanteni day dafa wara samp mouvement politique bu mu taxawal fi ci bir Jolof bi ma woowee ñu waxtan effectivement maa ngi koy deugal ne talal na ma loxo ta loxo bobu mu ma tàllal nangu naa ko accepté naa ko nangu naa ci ginaawam liggey ak mom lool maa ngi koy deugal lima metti bama bayyi compagnonnage boobu mën nañ ko yaatal ci bi biir def euh, action boo xam ne ci boo xam ne émission boo xam ne politique lay doon mu gën caa wax bu baax a baax xuusandi si. am na ay ci conseil man bu may yóbbaale man Maguette Diop action politique am. moom la concerne non ñooñu seen ñooñu da leen di woo nga laaj leen Maguette Diop. Maguette Diop action politique am moom la concerne moom mooy xool orientation bu ko neex mu jox ko ko. Comment selon son conviction et sa vision des choses donc conseil communal dañ ci parce que ñu Ramadan, Ramadan, gis ak Ramadan, Ramadan.